ci tudd yàlla la ñuy tàmbalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne lépp lu ab jullit di def rek na ko di tàmbalee ci bismillah nga xam ne su ko deful loola day ñàkk barke comme dañuy wax nag moo dox ñu ne ci tudd tur yàlla lañuy tàmbalee suñuy wax yàlla mi nga xam ne mooy rahmaan te itam mooy rahim yàlla bu la laajee nu mu tudd mooy allah yàlla mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom waaye kon turam mooy allah rahman nag ak rahim ay melo la ci moom rahman di melo yu tegtale ci moom yërmande te yërmande ji di yërmande ji yaatoo yaatu rahim tam di tegtale ci moom yërmande di yërmande joo xam ne nag daf koo jagleel rek ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm noonu mu ko waxee ci alquran wax ne wa kaana bil muminina rahiman yàlla mënoon naa wax bu ko sooboon bi mu ne bismillahi rek mu teg ci al mutajabbir wane ne mooy ku pànk ku doy waar ku deret waaye waxut loolu bi ñuy xamal boppam ñun daf ñoo xamal boppam ci yërmande ne man maay yàlla mi nga xam ne maay rahmaan te itam maay rahim maanaam man maay rahmaan te itam maay rahim loolu la suñ boroom wax kon xamuñu boppam ci weextan wala naqari deret wala na mu ñoo lor loolu seytaane rek moo koy def di wane ne yàlla ku doy waar la ku amee safaraam la tey lakke ba nit ñu bari daal di sib yàlla te fekk yàlla déedéet yàlla yow daf laa xamal boppam ci yërmande kon mi ngi la woo ngir yërëm la mi ngi la woo ngir jéggal la kon war ngaa mën a wuyu sa borom ci baatam yooyu muy rahmaan ak rahim ndax rahmaan mooy yërmande àddina ji nga xam ne yemaliwu ko sax ci doomu aadama yi waaye jàll na ba ci jur gi ak gàncax gi ñoom ñëpp am nañ ak cër ci xéewal gi nga xam ne mooy rahman kullan numidu haulayi wa haulayi min ataai rabbika wa ma kaana xataau rabbika maaduran nga xam ne yërmande àddina suñu borom xëñu ko lenn du nit itam nga sàkk ko ci moom daf la koy defal rek rahim nag mooy yërmande ji nga xam ne njëggal la loo xam ne ñi gëm la ko suñu borom di defal ëllëg ngir jéggal nañ ci seeni bàkkaar ak seeni rëcc rëcc ñu mën a texe dugg aljanna moo tax ñu tàmbalee ci bismillahi arrahmani rahim mu ne wasalla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci suñu sang mooy ki ñu gën ñun ñëpp muhammadin turam mooy muhammad mu ne yàlla yàlla na dool tedd nga ci suñu sang bii di alayhi salaatu wasalaam muy muhammad wasallama tuddooli ko ak musal tasliman ak musal mu ne aw na ko ñoo ngi sàkk si ndimbal yaa mu'inu yow aji dimbalee ji wa ci yow rek nag nastainu la ñuy sàkkoo ndimbal foofu loo am solo nga wax boo ko xamee te ko ndax wax nga sa borom ne ñoo ngi sàkku si ndimbal yow mi nga xam ne xam nañ ne yaa aji dimbalee yow dong dong dong nag la ñuy sàkkoo ndimbal ba bi loolu lay liggéey da nga tënk sàkk bi sàkku ndimbal ci yàlla rek mooy ci yow dong nag nastaan la ñuy ndimbal loolu sëriñ bi wax ca جوهر النفس ثم لا فكن بربك المعين استعان نجا ديمنديكو يالا ميغا خامني موم موي بروم ديمبال بان لا صاح بو ديمنديكو سي كارين كودول موم با لنن لودول موم دو ام ديمبال يو نك لولا واخ عاونك نيوغي ساك سي ديمبال يا معين يو اجي وبك تاتي يو ريك تم نستعين لا ني ساكو ديمبال nga tek ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel te loolu mooy xasbuna doy nañu sëkk rek allahu yàlla wa niama baax na amul moroom alwakiilu aji saytu jooju nga xam ne lépp loo ko gàll rek àttan na ko taman na ko gàddu taman na ko saytu xasbunallahu wa niamal wakiilu di lu am solo moom it ci ki ko xam ki ko wax te xam ko te fas ko mooy wax nga ne sa borom doy na la ci lépp doy na la ci lépp looy ñoddi doy na ci lépp loo xam ne tam danga koy jiñ di ko di ko dàq moo tax alquran di wax wa alallahi falyatawakkalil mu'minuun ñu gëm yàlla de yàlla rek ci lañuy war a aj seeni mbir ndax yàlla mooy ki nga xam ne loo ko gaal rek àttan na ko ci lum lay indil ak lum lay fegal Sëriñ Tuubaa woy na ci ay xasida yu bari yoo xam ne ci hasbunallah wa ni'mal wakilu ci la koy tënk jël araf yi benn bu ci nekk mu def ci ay bayit def naa lañ ci ci ay xasida egg na ci sax ci fukk ak ñaar yëpp rek nekk hasbunallah wa ni'mal wakilu ak benn bu ci ne wet gam ci jaar boromam di ca wax ak moom muy xasbuna doy nañu sëkk allahu yàlla wa ni'mata amul moroom alwakil aji saytu jooju boo ko waxee rek tam taa ci sa xol rek nga nga am loo yëg nii yàlla doy doy nañu sëkk nii doy loolu doy daa jafe léeg-léeg nit doyloo dara wax dëgg te fekk lam doyloo moo doyut nii waaye yàlla moom ku ko doyloo rek doyloo nga lu doy sëkk waaw nga wax ne allahumma yow buur bu mag bi ci melo yu kawe yi inni naka man ashhuduka maa ngi lay seedaloo wa ashhudu amalata arshika te maa ngi seedaloo sa malaayika yi nga xam ne ñoo yenoo arsh wa malaayikatika ak sa yeneen malaayika yi ci des yëpp rek wa jamiha xalqik ak sax sa mboolem mbindeef yi yëpp rek maa ngi leen seedaloo ne annaka bir na ne yow antallahu yaa yàlla te laa amul jenn yàlla ant anta judul yow ci li nga wax danga wax ne lii muy bëgg def yàlla yaa ma ci doy seede maa ngi lay seedaloo yow suñu borom di seedaloo malaayika yi yenu arash di seedaloo yeneen malaayika yi ci des yëpp ba sax di seedaloo mboolem sa mbindeef yëpp ci ne man day seede naa ne yow rek yaay yàlla te kenn du yàlla ku dul yow annaka anta allah laa ilaha illa anta wahdaka wahdaka mooy yow rekk yow rekk laa sharika di jënn aji bokkaale rek lakka di la ñeel maanaam kenn bokkul ak yow ci lenn du ci say jëf du ci say tur du ci say melo mooy li alquran wax ne laysa ka mislihi shay'un di dara di mel ne yàlla wa maa ngi seede ne anna muhammadan naka muhammad abduka sab jaam la wa rasuluka tey sa ndaw ngaa waxaat sa borom ne ko maa ngi lay def seede ci li may wax di def seede ci sa malaayika yenu arsh ak mboolem malaayika yi ak mboolem mbindeef yépp itam ci ne seede naa ne mu xam muhammad day abduka wa rasuluka sab jaam la tey sa ndaw loo xam ne yaa ko yónni ci say jaam loolu tam du am solo la ngir nga xam ko te fas ba mel na nasaraan yi nga xam ne ñoom dañ ne Isa yàlla waxoo loolu da nga ne abduka wa rasuluka sab jaam la boo xam ne yaa ko sàkk yaa ko bind te yaa ko moom waaye nag yaa ko teral te yónni ko ci say jaam nun day laa xaw xawla amuñu pexe ci bàyyi mbooleem xeeti may yi ca na nga ko teree wala quwwata amuñu kàttanu mën a sax ci jëfe mbooleem ndigal ci nanga ko diglee illa billahi lu dul ci sa ndimbal mooy illa billahi lu dul ci ndimbalal yàlla al ali yàlla mi aji kawe al yàlla mi aji màgg laa la wala quwata boo ko waxee dangaa dàq pexe ak kàttan ci sa bopp da dàq lépp luy pexe ak kàttan ci sa bopp wane ne ci ndimbali yàlla rek ci nga mën a dox ndimbalam ak yërmandeem rek moo la mën a dimbali ci lépp lu mën a doon mhm. moo taxit yomb na lool ci jox doomu aadama aajo ju muy sàkku ci yàlla te nuru ne daf koo jafe suñ boroom mën na laa jotale ci loola ndax seede ga nga seede ne sa pexe ak sa kàttan mënu la koo jox waaye xam nga ne yërmande yàlla ak ñi gënam yërmande yàlla ak ndimbalam mën na la koo jox xasbunallahu wa nixmal wakil boobu mu romb itam moom it yomb na lool ci dox diggante jaam bi ak lépp lu mu bëgg a mucc موحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله ما أم الجن يالا إلا الله جدول يالا ما يالا رك ما يالا تكن دي يالا كدول موم لول دانك موي موي تيري بي تيري بي لب دانك موي لا إله إلا الله محمد رسول الله خاج بن جكبي موي لا إله إلا الله سيد يالا رك ما يالا تكن دي يالا كدول موم te loolu dafa bokk ci li xam ne dafa ñor suñu boroom ngir jaam bi xam ko fase ni yàlla jàppe ko ni xam ne yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku moom ba demee ci alquran da nga fekk mu waxe ko nu bari ay waxin yu bokkut benn bu ci di jëmmal nekk gi mu nekk yàlla bañ itam ñu bokkaale ko ak kenn wala ñu bokkaale ko ak lenn walla ñu jàppe kenn yàlla ku dul moom wala ñu jàppe lenn yàlla ku dul moom mu ne xaala wax na al mbàkkiyu ki ñu la jëme ci askanu mbàkke ahmadu te mooy ahmadu bàmba ibnu balla ki nga xam ne mooy doom yi balla balla nag xabibu lañ ci jiblu muy xabibullahi xabibullahi sax maanaam maamam la ndax mooy waajuru maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali mooy waajuram waaye waxin woowu du njuumte arab yi ñoom danañ koy faral di waxe léeg-léeg nga jël sa maam mel ne ku ko teg place sa waajuru góor rek daal di waxe noonu ne ibnu balla te fekk balla di maamam xaala wax na almbakiyu ahmadu ibnu balla murtajiyan lutfal karimi jàlla lu wax mu ne murtajiyan mi ngi yaakaar lool lutfal karimi ñëwantalu ko aji tedd ji muy suñu borom subhanahu wa taala koo xam ne màgg la li wax nag moo tàmbalee foofu xamdan liman bi qidamin qadin farat walam yalid wala lahu kufan ahad xamdan ñi ngi cant ak cant li man ñeel yàlla mi nga xam ne xadin farada wéetu na bi xëdëbin ci ñàkk dale fenn diggal loolu ñu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne wéetu na ci ñàkk dale fenn mooy yàlla mooy ku tëmbaliwut fenn te kenn fekku ko ci loolu lu dul yàlla rek jamono amoon na amul ba mu xëy am am fu mu tàmbalee waaye yàlla nag mooy li nga xam ne moom tàmbalewul fenn walam yelit muy jurul mooy dara bàyyikowul ci moom yàlla ni mu doone ku bàyyikowul ci lenn noonu itam la doone koo xam ne lenn bàyyikowul ci moom ba lixlaas naan lam yelid walam yulad mooy suñu borom bàyyikowul ci lenn lenn bàyyikowul ci moom lu moom rek moomeelu gu boppam la goo xam ne moo ko sàkk waaye du lu bàyyikoo ci jëmmam wala loxo dee di ko ñeel ku fa an am nawle wala nga ne wala ahadan biir kenn ku fa an bi nawle la hoo ñeel ko mooy mooy amul soxna waaw moom la alquran di jungi naan badiu samawaat wal ard anna yakunu lahu waladu walam takun lahu saaxiba walam takun lahu saaxib mooy yàlla amul nawle amul soxna bay bii daal mooy lixlaas rek xamdan liman bi qidamin qadin farat ولم يلد ولا له كفا حد يخلاص رك لا تنك يا لموم الخالق القلق بالاختيار بغير حاجة ولا اضطرار الخالق الخلق موي كي بن مليف تا دافاي كويتم بالاختيار تي تشوبري بوبام سن بورو سبحانه وتعالى مو عمل ييب عمل ليب عمل فيب تا دافاي كو تشوبري بوبام yàlla amul lenn lo xamne moko moo imposé ci mu amal li mu amal manam amul lo xamne mo moo jënkal suñu borom bam tax mu amal li mu amal li mu amal daf ko amal bi ikhtiyarihi manam ci ciobare bopam bi xayre hajatin tam bi xayre hajatin lo am solo la moy suñu borom subhanahu wa taala li mu amal lépp aaji woko ci aaji jum koy fajal taxul mu amal ko manam yàlla amul lo xamne day aajoom mu bëgg aajam jooju faju nag mu jàpp ne aajo ji mi ngi fajoo ci amal mbindeef ba tax mu amal mbindeef maanaam boo jëloon misaal doomu aadama am na loo xam ne mën nga koo bëgg a amal te li nga bëgg a amal am jumtukaay yoo xam ne faaw nga am ko li nga bëgg door a mën a am ngaa di jumtukaay yi nag ngir mën a amal danga bëgg mu am mën nga jël misaal ne tey dangaa bëgg lu mel ni ab lal ministère yi bi mu bëggee lal ngir defar ko faaw mu jumtukaay lu mel ni martu dana ko aajowoo tañaak ak xeeti jumtukaay yooyu nga xam yëpp rek te ministère yi ko aajowoo jumtukaay yi du moom la soxla dëgg-dëgg waaye lal la bëgg waaye nag ngir mu am lal ci jumtukaay yooyu lay jaar ngir mën a liggéey lal maanaam suñu borom amul aajo yoo xam ne daf koo am mu sàkk ñu ñun ngir faje ñu aajoom ngir mën a réaliser lam bëgg am dëgg-dëgg ci misaal suñ borom it du koo xam ne daa bëgg nguuram yokk ba tax mu amal ñu ngir ñu nekk fi ñun di ko jaamu rek ngir pouvoir gën a yokk ñun suñ jaamu gi yokkul pouvoir yokkul nguuram dara suñu mooy ko du ko wàññi dara kon bi xëy xaajatin mooy yàlla daal ñun amuluñu ngir dimbindikoo ko ñu ci jenn aajoom xaniyun anil alamin la maanaam ku doylu la wala si mbindee fi waaw doo xam nga li wax hmm. bi xëy na xaajatin lu am solo. wala tiraarin mooy loruwu ci itam maanaam dund ko xam daa dem ba mënuñoo ñàkk amal mel ne daroor yi la pour mu amal ñu déedéet mën nañu ñàkk amal te du rek di yàlla waaw amal gi ñu amal moom amul lu ko maanaam daal lu mu mel ne dafa dem daal mënuñoo ñàkk amal daroor yàlla mënta nekk ñu ci jenn aajoom te duuruñu loo xam ne dañoo mun da ñàkk amal ba tax mu amal lépp rek bi iradatihi la coobareem rek kooku subhanahu rabban lahu irada wa qudratun yafalu ma arada subhanahu mooy bàkk naa ko maa ngi koy kañ maa ngi koy doon doolee moomale mboolem meloom yooyu di tegtale ak mat muy ñaar fukki melo yooyu nga jàngoo ci njëlbéenu tasawudu si xaar waaye maa ngi dàq ci moom tam mboolem safaani melo yooyu nga xam ne ak mat di la loolu mooy subhanahu bàkk naa ko mooy maa ngi koy dollee jagleel meloom yu mat yu kawe yooyu tey dàq ci moom melo yu mat di yooyu nga xam ne jomm na ci moom rabban mbir mu buur boo xam ne la xooñeel la ko iraadatum nammeel iraada mooy am na liberté ci boppam ba lu ko neex lay def kenn du ko force ci jëf mbir lu ko neex lay ñàkk a def kenn du ko force ci ñàkk def wa qudratun ak kàttan mooy amee na kàttan goo xam ne yafaalu ci lay jëfee maa lépp loo xam ne araadahu na mën a ko boroom boobu nag fa faddala al abraara bil imaani wa xazzala al gënal na al abraara ñu baax ñi bil imaani ci sababu su gëm gi ñu ko gëm wa xazzala abandonné na mooy gàccaal na bàyyi wàcc al fujaara kàccoor yi bil kufraani ci sababu su weddi ga ñu ko weddi loolu tax alquran ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën yëkkati ko fa sunu borom subhanahu wa taala gën faa amee tedd nga mooy ki leen gën a wekk seen boroom subhanahu wa taala kon yàlla moo gënal ñi gën muy abraar yi te nee na dara mayu leen loolu lu dul gëm gi gëm seen borom subhanahu wa taala mu gàccaal wàcc ñu rot seetaan leen muy yéefar yi te dara war lu ko lul wedd gi ñu ko weddi kon nangul yàlla lu am solo suma salaatan maa salaamin laa yarim ala shihaaki kulli mushrikin mulim suma salaatan topp doolik teral maa salaamin gu ànd ak mucc laa yarimi goo xam ne la dog ba mukk ala shihaaki kulli mushrikin yàlla nekk ci aji ngalaa bi bépp musrik mu liimuñ ko bi aji dikk dañ koy yedde mooy ko aji def lu waral yaraanga shihaak mooy su fekkoon ne da yor ak jur di jéggi ñun toolub jàmbur te ñu lekk ca tool ba looy ŋaaw ci seen gémmiñ lay doon nga xam ne da lañu tee mën a for ci gàncax giñ tiim su ñëwee ba jéggi tool bi rek loola nga koo tekki bu misaalee loolu ci yonte bi daa bëgg wax ne moom ñooy ki nga xam ne dafa wedanoo yéefari ba amatul ñuy wax ba mel ne koo xam ne danga ngaa ngalaab takk ko loolu moo tax mu ne xalaa si xaaki kulli musrikin yàlla nekk ci mbuuka mum yàlla nekk ci ki nga xam ne moo ngalaab yépp aji bokkaale musi boobu la loolu la tudde mu lim mooy ku def lu waral yaraaga kooku may wax nag ahmada mooy muhammadu rasulullah te boo ko xamul man mooy ki nga xam ne bon su yónneef ne ko bil quraan ci alquran moom la suñu borom subhanahu wa taala yónni te jox ko alquran kitaabun anzalnaahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wa li tazakkaru ulul albab wa afhamu mu wedemloo alfujjaara kàccoor yi mu yéefari bil burhaari ci ay lay yu leer ñaan gi mu ko ñaanal nag muy salaatan maha salaamin jooju la lan wa alihi ak ay ñoñom muy ña bokkoon ak moom deret te gëm ko wa sahbihi ak i sahabaam mooy ñi jamonante woon ak moom di taxawal lislaam wal ummati ak xeet yu yëpp rek nee na mi leen di boole ci ñaan gi min kulli muqtadin ak képp kuy aju roy muy koo xam ne mi ngi gëm te topp li yowmil xummati ba ci bisum njàqare ba mu yowmal xiyaam salaatu wasalaam googu nag mu ñaanal yonente bi wax ne wa alihi wa sahbihi wal umma salaatu googu la naan ba mu dañ mukk ci di nekk ci yonente bi ak li ñam ak i saxaabaam ak xeet wi maa daamal li fekk sax na su dalili borom tegtal bi tawxiid ci tawxiid yafuuxu di kawe saa jaxlin borom gu réer wa saa taqalidin ak borom gu roy foofu dafay bëgg a waane rek ne ki nga xam ne dafa am tegtal bu wóor ci yàlla ba gëm ko wéetal ko faw rek mooy kawe ki nga xam ne ngëmam ci jëxlu la tege wala taqlid moo tax man ñaan gi moom dañ di nekk ci yéen di maadaama li fekk sax na zut dalili boromu tegtal bi tawxiid ci tawxiid ya foo ko di kawe ki nga xam ne daa am tegtal bu leer ci gëm yàlla wéetu moom fii mi ngi kawe ki nga xam ne za jahlin la wa sa taqlid kan mooy sut dalil kan moo am tegtal bu leer ci tawxiid mooy ki nga xam ne danga koo xamal yàlla xamal ko ni suñu borom subhanahu wa taala ko am la te ku fi nekk ndaka jekk la tàmbaliwul fenn sosowul ci lenn nuruwul ak lenn ni ko njëlbeenu tasawudu si xaar jàngale imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujudu xaqiqu wa huwa qadimun maa lahu bidaaya wa soo baqaain maa lahu nihaaya wa soo xilaafin li bariyatin maa wa zuuqin bi nafsihi li jamaa ila axiri ba na mate ki nga jàngale melo yàlla yooyu mu xam ko fas ko gëm ko kon ko itam lay wane ne yàlla mënut a ñàkk am ndax bu amutoon du mën a amal dara te dara am na te am na ko ko amal te ki ko amal mënut ba mboolem lay jeex kooku ni mu amee tegtal bu leer ci gëm gi yàlla day kawe faaw ki nga xam ne dañ ne yàlla am na rek mu mu gëm ko kooku mooy saa ci moom amu ci firnde maanaam daal am na ko ne ko yàlla lu am la mu gëm ne yàlla lu am la. kooku ëllëg ñu ne ko mbir mi erreur la woon dañoo juum mujj nañ xam ne amut dem day mujj jàppan ne yàlla amut rek waaye ki nga xam ne da jaaral jaar ak moom ci maraaxil yi moom boo bëggoon a digg dikkaat nan ko yàlla amut sax doo ko mën a convaincre ci loolu lànk ki nga waxoon moom mënut li li nga ma waxoon moo gën a logique li nga ma bëgg a indilaat jëxlu nag moom mooy amu ci xam-xam mënut a démontrer mbir yi waaye nag wax nañ ko ne yàlla am na rek mu gëm. kooku fi nekk lu ko xañaat ngëm day yomb ngëm lu ko ko xañaat day yomb ndax buñ dikkaatee ne ko mujj nañ xam ne amul tam ni ma ko waxee day mujj jàppaat ne yàlla amul rek taqalit nag mooy ku ngelaw li yóbbaale rek moom lu nit ñi ne rek ma nga caa ñoom jàppee ko ne ko nit ñi jàpp saa ko nit ñi jàppee ne wëlbati ko ànd ak ñoom jàppeeti ko neneen rek waaw ñooñu nag xam nga seen mbir wax dëgg dëgërut nii dëgërut mu ne wa baax du ginnaaw loolu nag fal ulum mu xam-xam afdalu tilaada mooy ngeen gi tekkitil baax mooy ngën gi loo fekk muy ndono ci yow nga fekkoon ko ci say maam wa xayrun maata mooy ngën gi lépp loo xam ne it afaada jëriñe ne allahu yàlla bihi ci moom abdal ab jaam nee na xam-xam lu waaye naan ci say maam laa koy doon rek xam-xama ci gën xam-xam mooy ngën gi ndono xam-xam mooy ngën gi ndono te mooy li gën ci lépp lu ne yàlla jëriñe ne ko ab jaam rek xamal ko moo gën motax tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam demoon ba ne bu amé bis bu nur nër ko xam-xam bu mu ko fekk bi xam-xam melé non nak ulum rek la wax dafa yaatu xam-xam dafa yaatu ay patch yu bari la motax la mu ne laakin ma tawxidu gayru zuxri li shakhs fi al qabr wa yawm al nasr laakin ma way nak at tawhid muy ilmu tawhid muy xam-xam bi lay taxaw a yàlla xam-xam bi lay xamal ne yàlla lu am la nga nangu mooy amoon gi ba noppi nangu ko wéetal ci ne moom rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul yàlla nee na boobu nag moom xayru duxri mooy ngën gi ndaxañteef mooy ngën gi ab denc li shaxsi ñeel jëmm ji seen xabre ci bàmmeelam oyo ma nasri ak bis ba muy dekk waaye xam-xam ba xam-xam jeex nag bi ci gën mooy bi xamal jaam bi boroomam te may ko mën a wéetal boroom kennal yàlla nee mooy bi ëpp njariñ di jariñ nit ki ci biir bàmmeelam di ko jariñ ba bu dekkee taxaw bis pénc ba ba muy ànd ak mu dugg aljanna ñu ne ko lu tax mu ne li annahu an gayrihi yuxni wala bidunihi yufidu ilmun musjala li annahu ngeen dakawam ilmu tawxid boobu yuxni mën naa doyluloo nit ki an gayrihi ci perte beneen xam-xam bu mën a doon waaye nag wala yu fiidu du jëriñ xilmun benn xam-xam bi du nii te fekk anut ak moom muus jalaa ci joyal nee na ilmu tawhid mooy xam-xam bi nga xam ne bu ko nit xamee te fas ko jàppe noonu boroomam doyloo ko ngir mën a am ak mucc ëllëg ak doon si daa yeneen xam yi ci des yëpp xilmu tawhid boobu mu xam te pratique ko doy na ko ngir mën a ak mucc ci yàlla doon te umpale na yeneen mboole mboole yeneen xolum yi ci des yëpp daal waaye nag te yeneen xam-xam yépp bu daje woon ci moom te ilmu tawxiid bi bokku ca doyagul ngir mu mën a mucc mais tax mu gën ci mboolem xam moom soo ko amee ñàkk beneen xam-xam laa mën a mucc waaye yeneen xam yépp itam boo leen dajale ba moom te amoo ko doyagul ngir nga mën a mucc mooy li na annahu yuux nii dana doy lu ngir mën a am saada an xayrihi ci walis beneen budul moom tam umpale ko. تنك ولا يفيد جرن علم بن خم خم بدونه تفك أن تنم مسجلا مسجلا ميسيت مش بن ولم يرى الأكياس طالفا أتى فيه كمثل ما الصنوس أثبتا من أجل ذا سأل بعض الطلب نظني له لكي ينال المطلب سرين بني ولم يرى جسل لك الأكياس وينيوني طالفا بن طالف أتى بوخم ديكنا فيه جعل التوحيد te mislima bu mel ne ba nga xam ne asanu si imaamu sanu si asbata saxal na min ajlisa ngir lii tax na ba sa ala sàkku na baadu bi lenn ci way sàkku ña xam-xam nob nob nii sama woy man sëriñ bi lëfoo ñeel téere imaamu sanu boobu lekk yenaa la ngir maam mat la boo ko càkkuti fa leen ñi nga xam ne xam nañ wàll googu nag gis nañ ni amu ci benn taalif bu jëm ci wàllu tawxiid luñ gis ne gën naa mat taalif bi nga xam ne moom la ci imaamu sanu def te tudde woon ko umul barahin daañu loolu tax na ba lenn ci ñi sàkku xam-xam sàkku nañ ci man sëriñ bi ma woyal leen téere boobu loolu nag fa xumtu jóg naa musri'an tey aji gaaw ilal jawaab bi jëm ci tontu leen nee na moo ma tax a jóg ngir defal leen seen càkkutéef boobu mubtaghiyan tamay aji sàkku nag ci loolu may def i'anata tawwaabi ndimbalul yàlla mii aji jéggale daane wajaare dikkal na ma nag am nay lu am ga am loolu may sàkku bi aw awni ci ngën gi ndimbal min rabbi kulli kawnin tukkee ci buurub lépp lu nekk subhaanahu bàkk naa ko nee nag ndimbalul yàlla dikkal na ma ndax dana woon mubtaxiyan iaanata tawaabi ma ci sàkku ndimbalul yàlla mi aji jéggali mu ne nag ndimbalul yàlla loolu dikkal na ma ba tax ma def ko ci na ma ko bëggoon a def wa jaa ani dikkal na ma al naylu am nga bi xayril awli ci ngën gi ndimbal min rabbi kulli kaw ñu tukkee ci buurub lépp lu nekk subhaanahu tudd na ak sellam xataa nazamtuhu naa ko niraaman aw way jaamian wuy aji boole li kulli xayrin ñeel yëpp yiw daafi ante aji jëñ kulla na way naa ko woo xam ne lépp luy njariñ rek dajale na ko te lépp luy musiba itam daf koy fekk wa rubbama azidu barawaane na nga gis ma dolli fii mawdian ci béréb shay am dara loo xam ne lam yëkku nekkut fi nasri ca weser wa léeg ci biir téere bi léeg nga gis ma dolli ci béréb loo xam ne man maa ko fa dolli waaye boo tiimoon téere bi imam Sanusi doo ko ca fekk waaye nee na boo ko cee dolli rek li yenn saa ngir mu jëriñ albalida aji gàtt xel maanaam lu ma tas gën koo leeral gën ko yaatal lay doon ngir ki xelam gudd bu ci excès du tee mu mën a xam mhm. sàmmituhu tudd naa ko nag mawaahibal qudduus yi mayi sellaa kon bi may yàlla mi nga xam ne moom mooy quddus fi nazmi nasr naa ci nos wesaru suñu sëriñ Sanusi te mooy imaamu Sanusi nee li mu def nag way ko moom moom la tudde Mawaahibul Quddus ci way gu mu way loo xam ne imaamu Sanusi moom moo ko weesaroon te mu jëm ci wàllu tawxiid su ko defee wa nasaluhu ñi ngi koy ñaan moom yàlla wa nasaluhu danañu ñaan moom yàlla danañ ko ñaan wala nga ne wa wa aadanaata yàlla nañu musal allahu yàlla rabbuna mi sun borom abadan ba faw min charre seytaanin ci ay seytaane wa xaasidin ak aji añaan xasada joo xam ne jëf jëfandikoo na kañaanam wa aadana yàlla nañu musal allahu yàlla rabbuna mi sun borom yàlla mi ñu léppal moom moom ñu ngi sàkku musal ñu abadan abadan ba faw min charr seytaane ci ay saytaane wa xaasidin ak jëpp aji iñaan yoo xam ne xasada jëfandikoo na kañaanam di tax mu ne ku añaan te jëfandikoo kañaanam iñaan jàngoro la jàngoro yoo xol la joo xam ne mën naa nekk ci nit ba nit ki sax détecté ko ci boppam gis ko ci boppam bëgg mu dañ deex ak moom ngir bëgg dindi kañaan ci boppam kooko dafa mel ne garab goo xam ne mi ngi koy gor muyu ko sax mu ami xob di ko felet jamono bu nekk bëgg garab gi dee bokkut ki nga xam ne moom day suuxat garabam googu di ko roose màgg kooku mooy ki iñaan tey jëfandikoo kañaanam nga xam ne bu gisee lu mu nit sax daan daan kii daal lii yàlla na ko ñàkk rek nga xam bu ko ñàkkee mu ci kontaan nga ne kooku mi ngi dund kañaanam dëggantaan bu doon mi ngi koy roose rek ngir mu xam ne neex na ko ni mu mel neex na ko bokkut ki nga xam ne ni mu mel naqare na ko ci boppam ba mu ngi xeex ngir génne ko ci boppam moo tax mu ne ki añaan tey jëfandikoo kañaanam nasaluhu ñu ngi koy ñaan moom yàlla moom kaw na nizaami nekkuk sama way wii muy téere bi junnatan di pakk xani sair wali sawalaw sair wa sabiilal jannata yoonu aljanna ñu ngi koy ñaan téere bi nekk pakk buy fegal nit ñi sawaraw sair te nekk yoon wu ñu yóbbu aljanna wa bokk na ci li may ñaan yàlla añ yakkoonu mu nekk moom téere bi xaalisan di lu sell min kulli ma ci lépp loo xam ne yashinuhu mën na koo ñaawal wa bokk na ci li may ñaan an yajurra mu ñoddi an niama xéewal yàlla def suñ téere bi nekk téere boo xam ne ñoddi lépp luy xéewal bokk na ci li may ñaan suñu borom an yakkoon mu nekk moom téere bi xayra zaadin di ngën gi ab yóbbal liee ñeel ma seen xabri ci bàmmeel wal xasri ak bisu pang ba muy bu yàlla dajale jaam ñëpp ëllëg ngir àtte leen moo tax mu ne wa fittanaa ak ca wootante ba dégg nga yow ma yunaadil munaadi maa ngi ñaan yàlla téere bi nekk ngeen gi ab yóbbal ci sama bàmmeel ak ci bu ma dekkee taxaw bi ci ëllëg ba bokk na ci li may ñaan suñu borom añ yàkkoona mu nekk moom téere bi waaqiyan di aji fekk li kulli man ñeel képp koo xam ne xafisa mokkal na ko aw fahima wala mu xam ko min ku mu fegal ko lan min kulli fitna ci maa ñaan yàlla téere bi fegal bépp fitna suñu borom fegal bépp na ñeel képp koo xam ne mokkal na téere bi wala mu comprendre téere bi nga xam ne am na ci dégg aw fahima wala mu dégg lépp ne dama ko ñaan bi jaahi ahmada ci daraja yi ahmad mi muhammad alayhi salaatu wasalaam alshafii kay aji ràmm almutama ka di kuñ tànn wa maa ngi koy ñaan ci daraja yi al anbiyaaw mboolem anbiyaaw yi wala awliyaaw mboolem awliyaaw yi wala ulama mboolem borom xam-xam